dal leen ak jàmm mbokki internet yi ab tënk ci la gën a fees ci acte du jour la ñuy daal di doore rek fa seen leen a tënkal nag niki tey la nga xam ne rek mën nañ ne moom moo gën a fës ci li nga xam ne rek moom moo di xibaar yi mën nañ ne nag ci journée tey bi dañuy daal di dellusiwaat rek ci arrestation ki nga xam ne moo di Maître ngañ Demba Touré lan moo ko waral moom mi nga xam ne nag moom moo di am ay moom mi nga xam ne nag moo di Aïssata Tall Sall mën nañoo jàpp que ni kat kàddu yi nga xam ne rek yëkkati woon na ko jëmale ko ci kii di ngañ Demba Touré dafa Thiès waxul ci biir fekk jamono boobu kat ki nga xam ne rek moom moo di Rose Wardini daal dinay jota nag retiré li xam ne rek moom moo di candidature am ak la nga xam ne moo si bees ni ki tey ci journée beeg ki nga xam ne rek moom moo di Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne rek moom moo di candidat bu parti bii di ex Pastef la nga xam ne rek moom moo daal soxal mbir mi ni mel ak président Ousmane Sonko ma ca biir kaso baak libération jamono bi ñu toll ni ñu si baree bari di ko xaar ki nga xam ne moom moo di président de la république mën nañ ne nag moom moomee a amal nag nag li nga xam ne moom moo di benn discours ni ki suba ci 19 ko jàpp danañ ko daal di amal waaw wala déet wala bokk dina si indi ay leeral que ni kat lii di élection yi dina daal di am daal di koy door rek rek li nga xam ne moom moo di eh, kii di maître Ngagne Demba Touré mi nga xam ne rek mën nañ ñi ñu baree bari daal di nañ koy jot a ràññee ci eh, langu ko politique gi nekkat gannaaw arrestation jur nag li nga xam ne rek moom moo di coow ni ki tey ci ngoon gi sax gannaaw nag ba ñu daal dee amal rek li nga xam na moo di audition bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di greffier yi dañoo daal di lankin carré taxaw nag ci buntu fi nga xam ne rek moom moo di juge bi nga xam ne rek moom moo waroon a daal di def li nga xam ne rek moom moo di ak dégloom gannaaw gi nag mën nañ ñi mbir yi ni mel jotuta am te li ko waral nag du lenn lu dul rek ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ay farandoom di ay alliéem ci wàllu liggéey bi nga xam ne rek euh, ca lañ daal di nekk ñoom ñoo taxaw lankin kaare nekkat mbir moomee duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg ñuy sakaase wala boo ko ñuy wane ñàkk respecté goo xam ne rek def nañ ko kii di maître Ngagne Demba Touré gannaaw gi nag mën nañ ki nga xam ne sax moom moo di bi ni ki suba nag mu daal di war a janowaate ak moom rek fekk jamono boobu nag moom mii di Aïssata Tall Sall gannaaw nag yëkkati kàddoom doon xamle que kat am na ñu nga xam ne rek jot na nañoo gàll mandat dara ci seen ndoddu te mbir mi ni mel dem dikkaat taxul nag mu daal di lay teggeeku mën nañ ñu démb la yëkkati kàddu yi ni mel tey ñu xëy suba daal di dem arrêté kii di Ngagne Demba Touré ba mën nañ sax ñu si baree bari mbir mi ni mel bettu ndaxte kat ñoom daal di woon nañoo jot a xam ne ne kat kàddu yooyee donte ne tuddul tur wante kii di Ngagne Demba Touré bokk na si ñi nga xam ne rek ñoo ko moom xamante ne kat ba ñu xëyee tey dañoo daal di dem jëli ko moom mii di maître Ngagne Demba Touré mu nekk nag mbir mu nga xam ne rek ñu baree bari ci askanu Sunugaal daal di nañuy jàpp que moom mii di maître Ngagne Demba Touré moo tay li ni mel ndaxte kat gannaaw ba mu daal dee dem def li nga xam ne moom moo di liggéeyam ndaxte jotoon naa xam ne que ne kat ndaw ñi buñ tëjee ñëpp duñu am ku leen influencé ci réseau yi ba tax ñuy mën a lii di liggéey bi moom nag ba mu jàppee ne rek lii di ak daal daal dinay dellusiwaat ci réew mi dafa daal di takkaat ay bagaasam nekkat dina daal di dellusiwaat fii ci biir réew mi nekkat liggéeyal askanu sunu gaal te nag jàpp googee ñu ko jàpp dana am leneen loo xam ne rek dina ko war a daal di mën a dolli ci wàllu politique maanaam ci carrière politique am kon nag lan mooy erreur bi jamono bi ñu toll nii moom muy di maître Ngagne ba ture ba xam nag day wéy di continuer wala boo day daal di dakkal jamono boobu nag ki nga xam ne rek moom moo di Rose Wardini moom mi nga xam ne nag daal dinay li nga xam ne moom moo di candidature am gannaaw bañ koy tuumaal ak taqal li nga xam ne rek moom moo di double nationalité moom mii nag ñu bari nekkat dafa nekk complice kii di président Macky Sall moo tax nag président dal di koy digal rek mu daal di rocc ko ba seet wecc ndaxte kat bu ko deful woon li nga xam ne moom moo di élection yi pour mu am ci date bi nga xam ne rek ci lañ ko bëgg a fixé mu bañ romb nag la kii di président de la république wala def nag lii di passation de service am mën na dal di romb te loolee nag du jural jàmm ki nga xam moom moo di président de la république tax naka ñu baree bari rek daal di ne kon nag bu mbir mi ni amee am na lu tax te li tax du lenn lu dul rek kënekat kii di président Sall moom moo sàkku ci kii di Rose ni pour nag mu bañ a daal di taqalaat lii di carte gi xam na daal di rocceekuwaat ba mu seet wecc rek bu ko defee nag mu daal di bàyyi candidat yi nga xam ne rek bëgg nañoo dem ay élection ñoom it ñu fa yéenee daal di continuer wëyal amal li nga xam ne rek moom moo di seen élection ci moom moomee sax la ñuy des muy président de la république bi nga xam ne kat jot nañoo daal di jot ay xibaar ci RTS nekkat ni ki suba ci 19h bi dina daal di génn nag janoo ak askanu sunu gaal war a nag indi ay leeral yoo xam ne rek ñu baree bari ñu ngi koy xaar jamono bi ñu toll nii te li tax ñu koy xaar nag du lenn lu dul rek gannaaw ba ñu daal di gis kenn moom mii di président de la république war naa daal di yëkkati ay kàddoom ci élection yi nga xam ne rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi moom jàpp nañ ne le 3 mars waru koo mën a daal di passé wante kat lu ci mënti am ñoom it daal di nañuy def seen collectif rek te muy FC 25 muy soxal candidat yi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne kat élection dafa war a daal di gaaw a am immédiatement maanaam ci nam gën a gaawee. amatul lenn loo xam ne rek dañ koy xaar wala bokk lu ñuy négocier jamono bi ñu toll nii kat ne mbir mi dafa jot ñu daal di taxaw togg ko ba mu ñor xomm la ñuy xaar nag moom mooy suba lan la kii di président de la république war a tontu askanu sunu gaal nekkat dina daal di maintenir date boobe ndaxte waa conseil constitutionnel ñoom la ñu daal di woon a baaxal te sukkandiku sa moom mooy kenekat ñoom du ñu jàpp date ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di candidat yak seen président de la république nañu daal di waxtaan ci seen biir xool nag date bu leen arrangé wante kat lu mu yàgg-yàgg man nañ ne date boobee wërta passé nag le 2 avril bi nga xam ne rek ci la mbir yi daal di war a yam fekk jamono boobu nag moom mi nga xam ne rek moom moo di maitre Ngagne Demba ture ak ki nga xam ne rek moom moo di président Ousmane Sonko nekk ca biir kaso ba ba tey génn ñu ñu si bëree bëri nag di joxoñ ki nga xam rek moom moo di ministre la justice démb ba mu daal di génn rek question ya nga xam ne jotoon nañ ko kaa posé ci lu soxal euh, génn ki nga xam ne rek mu jote mooy kenn kat ñoom bu ñu desee ca kaso ba dañoo def comme ne seeni morom ndaxte kat ñi génn nekkul ne dañoo tëb tëb rek génnee leen dañoo daal di vérifier li nga xam ne rek moom moo dossier képp koo xam ne war nga saa génn ñu daal di génne kon nag ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko wala boog ki nga xam ne moom moo di Ngagne Demba wala boog ki nga xam ne rek moom moo di Bassirou fay munu ñëw tëb génne leen ci zéro doon télé ñu baree bari ñu ngi koy demande wante kat mbir ma nga xam ne rek moom mii di ministre de la justice daal dina koy jot a yëkkati mën nañ ñi askanu sunu gaal ñu si bëree bëri gëmuñu kàddu yi ni ndaxte kat ñoom la ñu jàpp te gëm ko moom mooy gën kat moom mii di ministre de la justice dafa wax la nga xam ne rek moom moo ko neex ndaxte kat lu toll ci trois cent et quelques personnes yoo xam ne rek daal dinañ leen di jotal libéré fii ci réew mii di Sénégal mën nañ ci lu matul sax une semaine ci mbir minimel nekk loo xam ne rek ñi ngi koy soog a nemmeeku lan moo ko waral ñu bari jàpp ne kat lees waxul la ndaxte kii di président de am na lu làqatu gannaaw loo xam ne rek bëgg na ko te askanu sunu gaal xamaguñu ko tax nag ñi ñu jàppoon ci ay élection wala bokk ñuy jàppoon ci ay manifestation ba ji ñoon leen fi sax ay terroriste ak ya ca aju ñu xëy xëy rek daal di leen di libéré mu nekk mbir mu nga xam ne rek mën nañ ne daal dinay jommal jaaxal askanu sunu gaal ñu baree baree bari ba tax sax ñu xëy rek daal di samp ab laaj nekkat lan moo waral mbir mi ca foofee nag lañuy ñuy daal di rek daaneel li nga xam ne moom moo di kàddu gi di leen di jaajëfal ci topp gi safoo gi faale gi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel seen chaîne YouTube Partout TV